الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا leen di nuyuwaat bu baax comme ni leen ko waxee woon rek nee naa leen tey moom du yomb moom gannaaw bu ñu jógee foofu noonu tey dañuy dimaat ci beneen koñ kii nag ki leen di dalal moom tey duñ leen ko présenté yéen waa 24actu yaakaar naa képp koo xam ne yaa ngi seetaan 24actu rek. da nga ko gis si si si si kii bi ci internet bi muy def ay série yu am solo si waajtaay tabaski bi rek am na yu mu doon yi nga xam ne moom doon na ko dugal muy bas fait des vidéos booy bu am talent la gars yi bu baax yi bàyyi leen ko xel bu baax a baax a baax nee naa leen ndaanaan la si biir ndaanaan yi Bass ñoo ngi lay nuyu. waaw la nuyu bu waa jàkkay Juga kon ndox may taay yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu gars yi may joué loolu théâtre yi di nuyu ko ci mel ni Mourou Seydou Mamadou Fallou Kiné bàyyi laat sama mag maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp xale jigéen ñi ñoom Khady Thiam ñoom Mama Ndiaye ñoom Adama ñoom Ndeye Biteye ñoom Fatou Séréer ñoom ñëpp maa ngi leen di waaw. di nuyu sama yaay di sama papa di nuyu waa kër gépp di sama mag yi soxna may xar yi ñoom Penda ñoom Habib Demba di nuyu ñëpp daal di nuyu sama ñoom Badja. waaw man foofu laay jaar tamit daal di nuyu ñi nga xam ne ñooy sama waa koñ comme ñu ko mel ni ay Cheikh Nallo ay Mbacke Cissé ay Pape Seck Xarim Ndiaye Cheikh Kane ah Xarim Cissé Baye Ibra Cissé bàyyiwuma kenn daal xam su ma limee du ma jum nag mais dama dul matal. kon di nuyu ñëpp di nuyu sama jigéen bu baax nag ku ci mel ni Ndeye Kontey ak Fat Diba Ndeye Kontey ak Fat Diba kooku sunu jigéen la bu baax a baax a baax ñoo ngi koy nuyu bu baree baree baree baree bare ak di nuyu sama beneen jigéen boo xam ne kooku ku sës la si man koo xam ne dafa sori si man lool muy soxna Absa Sylla Absa ñoo lay nuyu bu baax di la ziyaare kon Bass Boy TV vidéo tey ñu gis ne tey yow lañ seeti si bëccëgu tabaski bi day nan nga dundee tabaski bi Bass bala tabaski maa ngi koy ñoo ngi nii rek ginnaaw bi ñu julli jël pare ñëw defar xare yooyu ba añ ba pare rek ñoo ngi ñoo ngi à l'aise a ngi à te bu njëkkoon ñu daan gis euh, bu tabaski daan jub si comme xale yu ndaw yi nga xam ne dañu daan seen papa bu amagul xar te ak yeneen kër yi nga xam ne seen papa dañoo am xar ñoom seen papa amagul xar léegi. Euh, pëcc xaw boobu daan am seen diggante sa papa am na xar sa papa amul xar est yooyu yow mus nga kaa dund yow. waaw waaw sama papa am xar ma génn di ko woo si sama xarit yi may àndal yépp ne leen kaa yoo xool sama xar papa bi bu ko defee ñu ñoo xool maa ni may werante ñoom naa leen sama papa ëppale seen papa xar affaire yooyu yaa ma gën a xam. est que tabaski mus na jot sa papa euh, tabaski dem ba gën a jege te sa papa amul xar. non non loolu wax yàlla dund ba tey bu ñu demoon ba bisu tabaski tey comme comme bisu tabaski tey jii nii nii fii ñu toll tembe nii nga xam ne. xam nga tey rende nañ xar yi ba pare mais bu fekkoon ci suba gi la nga xam ne sa papa amagul xar yow loolu nan nan nga ko war a dundee tey. ah ma xam ne yàlla moo daan dogal mu am xar yàlla bu dogalee amul xar kay te ñoom ci corona bi corona bi ku am xar dañ la kaa war a sant même boo indi woon sax waruñu la kaa xeebal. léegi yow nan nga daan waaja tabaski bu njëkk ak par rapport ak bu tey bi. waaw xanaa waajal dem watu ji ñoom ñu ñawlul bu ma ñëw loo pare bala maa sol yére damay génn wan ko sama xarit damay àndal yëpp ne leen xool leen sama ñëw bi ñu wax maa leen dàqale ñëw ñoom tamit ñu ne ma maa dàqale ñëw après ngoon jot ñu dem ndéwénal que loolu am na ren. man ba léegi damay ba léegi damay ndéwénal bu ngoon jotoon nii après bu boo paree émission bi damay simeeku di sol sama yeneen yére dem ndéwénal waaye bu ma ndéwénal de. mais par rapport ndéwénalu njëkk ak ndéwénalu léegi nii est-ce que loolu loolu loolu. dina man a nuroo wala. waaw dina nuroo dina nuroo ndax ndewenal nañ ko daal defe rek lañ koy defe ndewenal ah gisuma daal lu changé man xanaa nag par rapport lii bi coronavirus bi daal. daa léegi ñu xool na ne bu njëkkoon nga xam ne dañ daan def di ni jóge koñ ba koñ wala xam nga buñ musaan a dem gis benn groupe boo xam ne groupe bu bari lay doon gars yi kar leen xam nga di nangu seen xaalis yooyu noonu est-ce que yooyu mus nga see mus nga see nekk. mosuma nangu xaalis kenn waaye kenn tamit mosuma nangu sama kon yow booy mosoo am fit yow ku am fit kay dëgg-dëgg day kar day kar nit ñi di nangu seeni i xaalis. affaire état daal laa bëggoon bi ma ah, nga woon bi nga nekkee xale. kon daal temps mag nga daal. non ba léegi xale laa ba léegi xale laa. Ah. tey nan nga dundee tabaski tay bi. texte bi sant yàlla rek neex yàlla di ñaan yàlla yàlla bàyyi ni fi ay déwén déwén tabaski moom neex na trop trop trop. julli ji woon. waaw yàlla moom jëmm nga gis ne julli dañuy gis tabaski ay léeg am na yenn xale yu góor yoo xam ne bu julli ji jotee ñoom dañuy toog seen kër ba julli ba pare ñuy door a génn di laaj ndax yow bokk si ñooñu wala. man nag mosuma amee julli ba ma amee un mois laa commencé julli. ba ma amee un moins nga commencé jul kon yow booy teel ngaa julli ah. waaw ba ma affaire comédien yi daa nekk si yow ba léegi nii ba nga amee un mois nga commencé julli. ci deret bi la ci deret bi la sama bu toogoon fii di comédie sëñ bi leneen la. sa papa yow comédie kat la. daa yëg la comme ci wàllum télé di waxtaan nii rek bay comédie te daal comédie la. waaw tey Bass bu ñu doon laaj bas Bass fait des vidéos lan moo la inspiré ba nga dugg si si si wàllu vidéo théâtre ah xaalis man de xaalis sama ci dugal wax dëgg yàlla ak tamit métier bi damaa neex métier théâtre damaa neex ndax dafa dafa présentable daal dafa neex barke Serigne Touba ndax damay seetaan ay ñoom Pod et Marichou ñuy joué lu rafet dafa mën mënuma cee wax daal ndax neex daal dëgg yàlla. yow dégg nañ la nga ne théâtre bi xaalis moo si dugal te théâtre souvent est-ce que théâtre am na xaalis. ah man de léegi ko ma ci ah, ba pare nga ne xaalis moo si dugal. xaalis moo mais xaalis. mais xaalis boobu nga si xaalis boobu nga si séntu est-ce que soo demee ba jëmmi jamono boo ko si gisul yow kon nooy def. Ah, de ndax man en plus élève laa sama dañuy gis yenn souvent yenn acteur yu mag yi dañ naan théâtre bi bu fekkee xaalis moo si dugal su yeboo nga teel a bàyyi ndax théâtre bi xaalis bëriwu ci bu fekkee. patience moo la si moo la si bàyyi nag su yeboo nga nga nga nekk si bu baax a baax a baax yow nga taxaw na tey xaalis moo la dugal ci théâtre kon est-ce que est-ce que est-ce que jotul nga xoolaat bu baax ni ngay liggéey. waaw man xam nga xale laa man théâtre yi soobuma ci noonu daal soobuma ci noonu ndax basé ci sama lépp sama lépp teguma ko théâtre parce que maa ngi jàng su ma demoon nii ba tey ba am sama bag damay wutiwaat beneen liggéey bi dëgg yàlla. yow théâtre da nga ko jàng wala théâtre da nga saf xorom rek pour mën a comédie dugg ci wala théâtre loo daan def la. jaar naa Ah. am na fu ma jaar daaray Kocc di la waaw di waa daaray Kocc bu baax a baax a baax ndaanaan yu mag yooyu nga xam ne ku ci mel ni Cheikh Cissé ak waa daaray Kocc ñëpp bàyyi ma Baye Sall bu daaray Kocc ak Khady ak Khady Ndiaye ak Baye Mbacke nuyu naa gaa yooyu yëpp waaw kon jaar nga benn groupe bu ñuy wax daaray Kocc moo la moo la xaw a def tuuti artiste pour nga mën a mën a ko léegi ñu duggaat ci tabaski bu baax a baax est-ce que Bass am na relation ak seen waa koñ. waaw waaw am naa bu baax sama relation ak waa seen waa ba am naa bu baax ak ñoom relation mais yëpp maa ngi leen di nuyu ñoom ci bitik bi maa ngi koy nuyu ñoom Talla ñoom Alaaji Gueye ñoom Xaadim Lawbe maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp Tane Anta Sarr mais yëpp nuyu naa leen. waaw foofu la ñuy jaar nuyu ak ñoom ñëpp. nuyu suñu grand bu baax muy Alaaji Fallou Gueye soldat Sëñ Fallou ak Bas Bas. bas bi si jagartaa yi ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu waa jagartaa yooyu yëpp jagartamaan yooyu yëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax kon bas kon ñu mel ni si ba jagu tabaski bii nii ay par rapport ay jamono yu njëkk comme xale yu jigéen yi nga xam ne daanañ ñëw sa kër di laaj ci ndewenaan wala yow nga daan joxe ay ndewenaan wala wala nga xam ne ay xale yu jigéen yoo xam ne da daan finance si ñoom xam naa sax léegi lay gën di yokku moom léegi moom booy VD vidéo nga bës nga da ngay am xale jigéen dañ lay gën a topp est-ce que loolu mën see am bis. man may laaj ndéwénal di joxe ndéwén may laaj ndéwénal xanaa benn yoon korite la woon ma dem sama kër maam yóbbu xaalis pour ñoom seen xaalis jënd xar yooyu ma sàcc ci 4000 yóbbu xale yóbbu ci ay xale jigéen ñu dem may la reer def affaire yooyu <laughs> toujours lii kaan ñàkkal fu la ñuy wax toujours lii toujours lii ba toujours karité après foofu nu mu mujjee. waaw sama yaay yëpp ko fekk tamit dama tombal ma dem suñu kër lekk sama wàjj yaay yëpp sama yaay ñëw di ma xasaale di di affaire yooyu. wàjj mooy lan. muusal. ah muusal xanaa bi mooy wax wàjj. waaw ñun law ah, ngeen di wax est-ce que jamono yooyu noonu nga xam ne musal muusal daanaam nga xam ne muusal dañ ko daan weer ci kaw terrasse bi nga xam ne. bu bu bu musaan dem boobu yaay maire dañ ko daan jël di ko aj ci kaw armoire yi eh, xale yi ndaw yi di ci di ci tibb di sàcc ak yooyu est-ce que nga si am bis. dama daan fontu su ma duggee ci néeg bi rek <laughs> nga après nga dem. sama yaay nag dafa muus moom ci ay sër lay jël lëmas ko dugal ko ci si woo denc mais man su ma duggee rek xet gi sama bakkanee foofu daal damay gii rek ma xam fi mu ko denc. yow lan ban ban jaar-jaar nga mos a def boo xamante ne tey boo ko fàttalikoo jooy dalay mos a jàpp. dooy reetaan. reetaan. man sama ñeenti mag sama man Baye Laat Habibou Demba ak Mamadou suñu jërëmaat maa ngi koy nuyu di leen nuyu ñoom ñëpp di euh, benn suñu benn tante la tante ne maa ngi koy nuyu au passage dañuy dem comme ça di dem di laaj na di ko laaj ndéwénal comme ça xam nga moom bu demee dañuy laaj ndax yoon ngeen weccet pour mu jox ñu lu tuuti ñu ñu dañuy jël suñu suufu taal yi la ñuy tekki. buñ tekkee ñun daal yi ñu dugal ci xaalis buñ ci dugalee xaalis buñ demee bu ngeen ndax yéen ngeen ñu ne ko yónni ñu dara mu visité ñu ne ko yónni ñu dara après mu jox ñu daal dem noonu kon mel ni Bass Boy VD vidéo daal am na ay jaar-jaar yoo xam ne xaw na doy waar waaw man mbër laa woon ah ñeme defet lañ ma tudde woon ñeme defet waaw ñaata nga mos am bëri na moom mosuma damay daanu di di gën am courage. ah booy li nga am bari na de. damay daanu di am courage. Ah. Euh, tabaski bu njëkkoon ak léegi xaw na wute trop trop trop trop ndax bu njëkkoon daanañ gis euh, xale yu jigéen ñi di di di di di sañse di di di seeti seen copain yi léegi ndax am mus nga am bis boo xamante ne ni benn xale bu jigéen mus na sañse seet si la benn xale bu jigéen mus laa seet. kon yow star bi ngay wax ne da nga kaa doon yow kon fan la la féete. doon gu ma star de man may débutant man may doog a ñëw nga naan may star. est-ce nga yaakaar na yow bis dina ñëw nga doon star yow. ah yàlla baax na loolu it waaw waaw waaw yaakaar naa ko ndax maa ngi def sama liggéey nu mu waree kay mën naa dem ba gën a garaate sax ñu ci nekk. ah waaw. fan nga teg sa bët instant nii. man fii Youssou Ndour teg bët. yii <laughs> booy <laughs> booy fi nga teg sa bët sori kon léegi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di am mbéykitewaat bu baax a baax a baax a baax waaw di wax nga tàggoo. waaw tàggoo bi lenn kenn la di nuyu sama waa di nuyu bu baax ñu may joué doon jaata bi ku ci mel ni Modou Gueye Seri boo fi teeloon a ñëw sax duñ ko fekk ndax ñun moom duñ tàqali ko ku ci mel ni Modou Gueye Seri bàyyi laa sama mag Fallou Kiné Seydou Fatou Séréel Khady Kane Mamadou bàyyi bi la caméraman di nuyu ñëpp di nuyu sama waa koñ yëpp daal maa ngi leen nuyu. di nuyu sama yaay sama yaay sama yaay maa ngi koy nuyu bu baax naan ko yaay dundal di nuyu sama papa di nuyu seen waa kër gépp daal di nuyu samay mag samay rakk di nuyu ñëpp waaw samay jërbaat samay am di jàmm maa ngi nuyu ñëpp waaw kon ñoo ngi leen di jégluwaat bu baax foofu laa jaar tamit man daal di nuyu Bass Boulangerie xaritu Diba ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax borom jagarta maam yi ñu ngi lay ziar bu baax a baax di nuyu Faat Diba ziar nañ la bu baax jigéenu Diba kan ñu ngi lay ziar yow tamit bu baax a baax a baax di nuyu Soxna Absa Sylla ziar nañ ñeen ñëpp di ziar yéen ñi nga xam ne yéen a baaxoo àndoon ak 24actu seen émission ndéwénal tey nag ñaar yi ndaanaan yooyu lañ leen indi doon ñoo leen di jox dig daje ba yeneen jamono الله أكبر الله أكبر الله